dem géejawaay jox maire bi lu mot fukki junni masque ma nag suñu jógee géejawaay ñun li war a def mooy ñëw Tiwaawan ci yow lañ waroon a njëkkee sax comme démb lañ bëggoon a ñëw xam naa ni temps bi xawoon na xat tey nag ñu indil la quinze mille lu mat fukki junni masque ak juróom jox la ko pour nga teg ko sa loxo comme ni nga ma ko waxee woon nii lépp lu may def Tiwaawan naa ñëw ba ci yow moo tax ma ñëw ci yow indil la fukki quinze mille masques yi indaale naa tam cinquante carton dëwlin un litre mu war a tollu ci deux mille litres dëwlin ma ñëw indil la ko mm-hmm. ah dëwlin bi nag xam naa ni mooy sa dëwlin ndax mooy sama marque bi nga xam ni bi may defar mm-hmm. ah, bi ma koy waaj tàmbali yóbbuwoon naa ko ci sëñ Abdou ci jamonoom mm-hmm. mais comme boobu léegi jot bi may ñu woon ñu ñëw wan la ko indaale nañ ko moo tax ma indil la ko nga xool mi ngi noonu sa yëf la daal nga defal ñu ci ñaan dund nee na dund gi dafa gàtt te àddina àdduna bi ñu nekk dara wóoratu ci. kon nee na kon lu waay mën. ci lu baax ci lu baax. na gaawantu def na gaawantu def ko. àddinaa ngi naqari rek. nee na àddinaa ngi naqari gën a jafe. di gën rek. kon ku mën lu baax su yeboo rek nga taxaw def ko. alhamdulilah rabbil alamin. na alhamdulilahi rabbil alamin. ba nga nga demee Géejawaay. Géejawaay. ba nga demee Géejawaay fa nga juddoo. def fa la nga fa def. def fa action ba nga fa def. soog a ñëw fii. soog a ñëw ci xadara bii. soo njëkkoon ñëw fii. nee na soo njëkkoon ñëw fii. dina la laaj ndax sedd nga say dina la laaj yow ndax Abdoul Aziz sedd nga sey mbokk. ndax sedd nga say dëkkaale. ndax sedd nga say dëkkaale. ndax jaamu yàlla. ndax sedd nga jaamu yàlla yi ba noppi. boo nee déedéet. soo nee déedéet. la moomaguñ ko. mun la ah ñun de moomaguñ ko. yóbbu ko ci say mbokk ci say dëkkaale. loolu itam. nee itam. yàlla ko digal. yàlla moo ñu ko digal. yàlla daf ñu sant nii. yàlla daf ñu sant nii. nañu ko jaam moom képp. te bu ñu ko boole kenn. te am am moo am am moo ku yàlla ni am. ku yàlla ni am. geesul ka nga dendal. ka nga dendal. ni ko am ni ko am. kooku geesul ka mu dendal ni ko am. am muy wër. nee na muy wër. ba delluwaat ca yàlla taxaw taxawaayu cant. yàlla ni jaam boo xam ni. su ma ko joxee. mu nangoo séddale. sama loxo dootul jóg ci moom. soo dee soo dee wut. te bëgg am. te bëgg am. la ngay am di barkel bëgg la génne azaka. di laave sa alal. ñett na ñett yooyu. yombul nee na yombul trop. parce que nit ñi duñu saraxe. saraxe. dañuy maye. dañuy lii nga fi indi. nee na lii nga fi indi. bu ko tuddee may. nee na bu ko tudd may. ko sarax. nee na tuddee ko ndax ñun ñii ñëpp nag ay taalibe lañu. taalibe lañu. taalibe dëkk ci daara ji. dëkk ci kon sarax rek lañuy dunde dundee. ku ko rëylu nag. ku la joxati. bul nangu bul nangu. léegi nga wuti ko. nee na léegi nga dem wuti ko. sarax nee na sarax. dépense su kër sax. nee na dépense su kër sax. na ko borom kër tudde sarax. na ko donte ci lay añ. donte na ko tudde sarax. Hmm, gërëm bu baax a na mu gërëm bu baax bu baax taxawaay bii. ndax joxe boo xam ne kenn géttalu la joxe boo xam ne kenn géttalu la ci nga def kook sa sago. nga def kook sa sago. def kook sa yéene. ak pas-pas. def kook sa nga cee na mën nga cee nag yaakaar yàlla. yàlla bu yaakaar tas amiin. yàlla ñaan yàlla. yàlla yàlla gën a dëgëral seen diggante yi. ndaw ngeen. nee na yéen ay ndaw ngeen. ànd leen. te rafetal ànd bi. ànd ngir yàlla. wóolante. yaakaarante. jëflante loo xam ni. jëflante loo xam ni. ci ànd. ak ni yàlla bëggee ku ànd. yàlla bëggee ku ànd. ngeen góor góorlu ci. ba yàlla defaral leen seen ëllëg. ba yàlla defaral leen seen ëllëg. li ci ëllëg nag. nee li aju ci ëllëg nag. yaakaar leen ci. leen ci. waaye bu leen ko xëccu léegi. waaye bu leen ko xëccu léegi nag. àggagu leen ci. leen ci. des na. des na ku yàkkamti ëllëg ku wuuteeg yàlla te ku wuuteeg yàlla la ngay def du sotti kon defal sa waru gar bàyyi sa bopp ak yàlla liggéeyal tey bu ëllëgee nga am loo añee la la yàlla di jox nag yàlla moo ko xam àggagoo ca yalla na len yalla jappale